te ñu ciy joxe ay modèle ay góor ak i jigéen yu waroon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gëmoon ne liggéey bi seen liggéey la woote bi seen woote la ay jaami yàlla lañ yàlla leen sàkk wàcce leen ci kaw suuf ñu war a nekk ay soldaar yu ko liggéeyal ginnaaw ba yàlla tabaraka wa taala tànnee diine ji jagleel ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom subhaanahu wa mo moo tànn yonent bi pour mu war ko jottalil diine jii di diine lislaam waaye ba mu tànnee yonent bi mu tànnal ko ay àndandoo ay saxaaba yoo xam ne ñoo koy doon jàppale ci liggéey bi abu bakrin siddiq usmaan ibnu affan omar abi taalib bilaal muazzinu rasul hamza ibnu abdul naka noonu ummu ammaara naka noonu yaay aïcha kenn du fàtte yaay xadija kooku nga xam ne moo njëkk a gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax yonent bi da doon wax kenn du Khadija ba ma ñëpp weddee moo ma gëm ba ma ñëpp xañee moo ma jox ba ma ñëpp foñee moo ma wéttal te moom la ma yàlla wërsëgal ma amal loo ma am moom loo xam ne aw ma ko kenn kon mbokk yi ci yàlla liggéeyu lislaam chaque jour ay góor ki jigéen la yàlla ne na wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad yaamuruuna bilmaaruf wa yanhawna anil munkar suñ borom subhaanahu wa taala nee na góor ñi ak jigéen ñi wa muminuuna wal muminaat way gëm yàlla yi góor yi ak way gëm yàlla yu jigéen yi ñoo war a far ñoo war a ànd ñoo war a allié loolu ñu naan alliance pour taxawal kàddu yàlla subhaanahu wa taala digle lu baax tere lu bon noonu mu amee ci jamono noonu la amee woon ci jamono yonent yàlla muhammad ba saa yu daan dem xeex sax day ànd ak góor ñi waaye day ànd ak jigéen ñi bu leen fàtte xew-xew bu mag ba mu doon wax ne gestuwuma ndeyjoor gestuwuma càmmoñ lu dul maa ngi gis ummu ammaara muy xeex ak samay noon muy Nusayba bintu Kab su ko defee mbokk yi ci yàlla góor ñooñu ak jigéen ñooñu nga xam ne ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu doon ko liggéeyal xar seen tànk ci liggéeyi lislaam liggéey ci loo xamante ne àddina bi yëpp a ngi koy coow histoire bind seeni tur ñu nekk ay góor ak jigéen ñooñu yaakaar naa ne duñ leen jàng rekk daldi bàyyi waaye ay royukaay lañ war a doon yoo xamante ne dañ leen di déglu xool fiñ jaaroon ndax ñun tamit ñu jéem faa jaar ndax ñoom lañu am ñun ñu jëm koo am te tasabbahu in lam takunu mislahum dee leen nuru nuru lu ñu baax ñi doonte ne mun leen egg ca ñoom waaye nuru nuru leen ndax jéem nuru ku baax day tax nga baax looloo tax ñu ñuy nettali histoire yi nekk ci lislaam yàlla tabaraka wa taala di wan yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi di ñu nettali histoire nit ñu baax ñi boroom xam-xam yi di ñu nettali histoire sahabatul kiram pour ñu war a góorgóorlu jéem a mel ni ñooñu jéem a wooteel yàlla jéem a liggéeyal yàlla tabaraka wa taala jéem a taxaw samp suñuy tànk takk suñuy ndigg jàpp ci tool bi di toolu lislaam ndax lool dong lañ fi am amuñu leneen lu dul loolu lu nu mën a def ci kaw suuf lu ñu mën a liggéey fii lañ koy bàyyi fekk yàlla tabaraka wa taala ndeysaan boroom xam-xam yi nee nañ booy dem booy ne cëpp alaaxira malaaka yi ne la loo indaale waaw loo fa ba loo fi indaale allahu akbar waaye liñ fi baax am importance bu fekkente ne bàyyiwuñ fi lu baax mu la yàlla naan inna allazina qaalu rabbuna allahu summa staqaamu mu ne tatanazzalu alayhim almalaika alaa taxaafu wala tahzanu wa absiru yàlla ne la bu fekkee danga doon liggéeyal yàlla ñu ne la bul tiit bul jàq li nga bàyyi ginnaaw danañ ci teg loxo fii nga jëm doo fi tiit doo jàq allaa taxaafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tuadun bég leen kontaan leen ci aljanna ji nga xam ne moom lañ leen digoon loolu tax liggéeyal yàlla rek moo wóor ku liggéeyal yàlla ba yàlla digla la aljanna soo ñëwee fekk fa sa aljanna jooju mbokk jullit yi ci góor ñooñu ak jigéen ñooñu nga xam ne ñoo waroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam Aïcha ummul muminin kenn demul mu des nga xam ne mokkaloon na deux mille deux cent dix ci xadis yonent bi alayhi salaatu wassalaam Anas ibnu Malik xoolal Bilal rek Bilal nekk nit ku ñuul yonent bi alayhi salaatu wasalaam dugg aljanna dégg tànk Bilal di yëngu mu ñëwaat ne bilaal loo liggéeyal yàlla noo mën a nekkee ci suuf ma dégg say tànk di yëngatu biir aljanna mu ne ko saa yi ma njàppee njàpp mu bees bala may toog jullil ci yàlla ñaari ràkk ixwaanil ixwatal iman ñi ñooy borom pas-pas yu dëgër yi ñi jëloon ñii ñoo jëloon seen lépp jox yàlla tabaraka wa taala bàyyiwuñu dara dara dara seen lépp ñu jox ko yàlla aboubacar saddiq jël na alalam jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi noo loo bàyyi kër ga mu ne bàyyee naa leen yàlla ak yonent ñoom ñëpp góor ak jigéen taxaw nañ ci woote bi samp seeni tànk yemuñ ci waaye tuur seeni deret xare xeex ñaata saxaaba lañu rey xam ngi nii dañ ko rey yemuñ ci rey ko waaye daggate ko Musab ibnu Umayr dañ ko rey keroog biñ ko reyee Uhud ñu koy suul ndeysaan ay saaku la woddoo woon sol saaku bu ñu xëccee yére bi mu soloon ci bopp bi tànk yi feeñ suñu xëccee ci tànk yi bopp bi feeñ yonent bi ne xëcc leen yére bi ci bopp bi ngeen mottali ci tànk yi ñax lu ko yóbbe loolu liggéeyal yàlla ba mu nekkee moom conn cundug màkk nga xam ne ab yéeféer la woon gëmul yàlla moo gënoon rafet lu muy sol moo gënoon neex parfon bu xeeñ bu muy tuuru su génnee ñëpp bëgg mel ni moom koo gis mu naan man damaa bëgg a mel ni musab damaa bëgg mel ni musab damaa bëgg a mel ni musab mu mujj dugg ci lislaam di waddoo ay saaku di sol saaku ñu rey ko dugal ko ci pax di ko suul amuñu luñ ko la sànge suñu xëccee yére bi ci bopp bi tànk yi feeñ bu ñu xëccee tànk yi bopp bi feeñ mbokk yi ci yàlla kon gaañaa ngoog nekk ay góor ak jigéen ñun ñu war leen a roy war leen a topp war jàngat jàngat seeni jaar-jaar ndax ñoom kat la amoon ñun ñu mën koo am ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa yàlla yal nañ ko yàlla defal yàlla barkeel dund gi ak njaboot gi yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla taxaw ñoo ngi jéggalu kàddu yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.